émission Faram Facce euh, ni ñu koy defee àllarba bu jot ñu ànd ak yéen ci émission bi en direct euh, di waxtaanee tolluwaayu réew mi Faram Facce ko ak suñu ay invité euh, muy émission boo xam ne dañu leen koy fàttali rek li ko tax a jóg mooy Faram Facce actualité politique réew mi ci wàll yëpp nag wàll bu ci ne ñu yaatal ko Faram Facce ko loolu mooy li nga xam ne moo yëkkati émission bii di Faram Facce ak télévision Futur Média tey nag ñu di ci dalal monsieur Sori Ba moo nekkoon directeur général bu Sénégal yi nga xam ne ñooy dund bitim réew nekk responsable politique APR itam ca Fatick moom la ñuy recevoir tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média monsieur Kaba Sori ñu ngi lay nuyu. Euh, Pape maa lay fay. di la di la gërëm di la sant ci invitation bi. Euh, di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. Hmm. ni ki tey ci Faram Facce comme ni nga ko waxee. jërëjëf. ci actualité réew mi ni réew mi tëddee ak ni réew mi doxee actuellement. dëgg la hmm. jërëjëf euh, Sori euh, sa tur nag dafa xaw jaxasoo ak mandat président de la république troisième mandat bi daanaka fu ñuy waxee sax euh, mandat bi xel yi dem ci Sori Kaba am ñu jàpp ni yaa ci njëkk a nekk victime ci loolu troisième mandat boobu est-ce que di nga yëg loolu. ak fu ñu waxee mandat bi xel yi dem ci suur yi euh, di ngay di ngay dund loolu quand même. jërëjëf Pape euh, nga jéggal ma tuuti rek ma ma profité ci occasion bi. Mhm. Euh, pour jaale sénégalais yi parce que ren moom dafa nekkoon année bu xaw tiis. Mhm. këru diine yëpp muy Tiwaawoon di Touba di kaw Kaolack koo ci gis rek am na tiis bu dal ci kawam. ay kilifa diine yu mag. Mhm. sunu borom jëlee leen fi. ginnaaw bi ñu leen jaalee de manière personnelle je crois que occasion la pour que ñu jaale réew mi yëpp ci tiis yu métti yooyu mm-hmm. mais di jaale également mbokk sénégalais yëpp ñi nga xam ne tey covid laal na leen mm-hmm. ñu am mbokk bu ci génn àdduna di leen ñaanal ñoom ñëpp sunu borom xare leen aljana yokk seen leer te oyofal suuf seen kaw amiin di ci boole également mbokk diaspora mm-hmm. parce loolu lu la parce que dara gënul métti nga nekk ci jaspora sa njaboot am ci yow yaakaar sa bakkan des fa j'avais l'habitude de dire ci xare la sa bakkan des ñooñu it ñu ngi leen di jaale seeni i mbokk euh, di ñaan sunu borom xare leen aljana di profiter également ci jour examen wu bag bi jaajëfal candidat yi euh, di leen souhaiter bonne chance xam naa ne examen wu ren ni examen yu métti lay doon ça sera très particulier bu loolu weesoo ces questions je pense que dama koy jël relativement parce que oui bu ñu nee troisième mandat xel yi dem ci Sori ba c'est normal mais man dama ci ànd ak dal parce que dama am un parcours politique boo xamante ne loolu dama ko si jàpp comme un élément de ce parcours. parce que koo xam da ngay def politique mënuloo xam li xew ëllëg li nga mën rek mooy sabablu ànd ak gëm-gëm ci li ngay def ngemboo ko taraxlaayoo ko. te di ci dox. loolu moo lay motiver bés bu yàlla sàkk loolu mooy nekk sa enthousiasme bés bu yàlla sàkk loolu mooy nekk sa identité. ku nekk day ñaan identité boobu nekk identité bu rafet. kon man jàpp naa ni tey bu ñu nee troisième mandat xel yi dem ci Sori Kaba jàpp naa ne du lu ñaaw. ci sama xel bu gàtt. bu dee lu du ñaaw la it maa ngi ciy jéggulu parce que bëgguma mu ñaaw. parce que ku ma xam-xam ni. Euh, mais identité nga ko jàppee ci sa parcours politique. ci sama parcours politique. parce que comme ni nga ko waxee. Euh, toujours bu ñu nee mandat rek. d' accord ah Sori Kabade. d' accord voilà donc euh, donc identité nga ko jàppe ci sa parcours kon da nga koy assumer propos yi nga ci yëkkati. ah oui oui da nga koy assumer. da ngay assumer que le président de la république mi ngi ci ñaareelu mandaam amul droit def ñetti mandat. par contre foofu je pense que débat bi mën nañ ci bañu a xuus parce que amaluma njëriñ tey te dina ma permettre sax ñiy jàpp ne Sori Kaba dafa indiscipliné ma xamal leen le contraire parce que le 31 décembre 2019. président de la république nekk sama responsable lu parti nekk sama leader ma am ci moom yaakaar ànd ak moom depuis 2010 ci coobareem jëlee ma Europe andi ma mairie bu Fatick tey ma koy jàppale ci bopp réew mi kon kooku mënumaa jàpp ne sama ànd ak moom ànd bu ma ko ñàkku la xam la wala ànd bu ma ñàkku la xam la ku ci nekk ci ñun dafa am foo nekkoon avant bu ànd bi ñëwee rek dañ koy rafetal moom mii sama leader bu fekkente ne toog na le 31 décembre 2019 mu lancé un appel militants yi responsables yi ne leen ngir yàlla bu ñu kenn dugal ci troisième mandat deuxième mandat quatrième mandat ñu jublu ci li nga xamante ne moom la ñu réew mi sas muy liggéeyal leen ba jafe yi nga xamante ne moom la sénégalais am ñu mën ko teggi depuis boobu laa ne tant que moom newaatul nañ ci wax dootuma ci àddu mhm. parce que nag loolu mooy yoon ba waxtu yi may wax ak yow je me réclame militant de la l'APR te moom mooy njiitu APR bu njiit gi yëkkatee kàddoom nag dañ ko koy respecté. <laughs> d'accord c'est-à-dire euh, man nag vraiment foofu am naa fa am naa fa mbetteel tuuti ci yow parce que li ma si bett mooy euh, mënuma comprendre nga def ko identité. mu bokk nekk élément ci sa parcours parcours politique yow yaa ko wax parce que itam ci li nga wax rek laay wax ak yow euh, tey nga bëgg ci dellu ginnaaw parce que li ngay wax nii mooy vraiment assumé ko mënatuloo ko wax et puis ci wax. waxuma loolu xam nga dafa am jamono yee passé ci benn télé bu ma dem ñu laaj ma la même question ma répondre leen la même chose. ñu xëy bind rétropédalage de Sori Kaba maanaam dama jàpp ni bu dee tubaab la ñuy làkk rétropédalage mooy la ma waxoon wandi naa ko nekkuma ci dynamique boobu. si déedéet yow ci ñoom ci français la ñu wax man ci olof laay wax yow li nga bëgg a def nii wax waxet lay doon. nekkuma ci dynamique wax lay wax waxet parce que ba tey newuma la que la ma waxoon dama ci jóg dama ne la. bës bi nga xamante ne moom mii leaderu parti bi ma gëm ko mooy sama leader bës bu wootee waatee na mën nañ cee wax bu boobaa di nga dégg sama kàddu. mais directeur auparavant bien avant nga ci euh, nga ci euh, nga ci intervenir mais je pense que am na séminaire bu ngeen def ci wàllu communication loolu bëri na ñoo xam ni wax nañ ko bi ñu lay attaqué argument boobu la ñu wax. dégg nañ ci ñu bari ñoo xam ne argument boobu la ñu wax que wax nañu ci mais terewul Sori dafa génn wax li ko neex. est-ce que noonu la demee wala demeewul noonu. xam nga man Sori kenn duma woo ne ma attaqué le ngañ saaga ko ma def ko maa mag loolu kilifteef bi may incarné cër bi ma jox sénégalais yi moo tax ba loolu duma ko doxee. dafa am ñu koy def. bu ñu wooyee nit dafa am ñu koy def loolu. ah bu ñu wooyee nit ci am na ñoo xam noonu la ñuy ah doxee. ah loolu la ñuy doxee parce que comme ni nga ko waxee. attaquer Souri Kaba ci li mu wax ci troisième mandat il fallait que ñu am argumentaire moo tax ñu invoqué séminaire boobu mais séminaire boobu man wax naa ko fii wax ko feneen président de la république yëkkatigul kàddoom ci séminaire boobu ne bu kenn wax ci troisième mandat wala deuxième mandat dafa ne dama bëgg ngeen concentré wu ci bilan ngeen concentré wu ci PSE ngeen concentré wu ci PAP 2 bi nga xam ne moom lañ nekk di mettre en œuvre waxuñ foofu mandat waaw ah. nag. ñoom ñoo def seen i déduction mhm. génn attaquer diw nga attaqué ko saagaal diw nga saaga ko ils assumeront leurs propos mhm. man je ne mange pas de ce pain man dama jàpp ni militant discipliné tu dois être à l'écoute aux yeux à la bouche de ton leader bu fekkee d'accord ak moom ca la mu wax nga toog bu keroog nga am possibilité jàkkaarloog moom wala instance yi permettre la ko mhm. loolu mooy li nga xam mooy logique moom la militant bu ne war a bës bu yàlla sàkk te loolu laay wax à partir si muy samay mbokk militant yi nekk Fatick les camarades yi nekk Fatick nekk ko Tataguine nekk ko Thiamène nekk ko Mbane nekk ko fu nekk dans la région de Fatick nekk ko dans la diaspora bokk APR te seen xel di dem ci Sori Kaba chaque fois bu yëkkatee kaddu loolu laa leen di dénk comme kàddu kaddu gi mooy boo amee leader mu ne la bëgguma lii àndal ak moom ci loolu boo ci d'accordul xaaral ba nga am occasion ngeen débattre ci yéen ñaar bu boobaa jàmm day na ñooy. d'accord rétropédalage amu fi. waaw dellu ginnaaw amu fi. Sori Kaba foo ko fekk day assumer man loolu mooy li ma. li ma d'accord donc ku la dégg directeur mooy kon président dafa juum ci yow. ku la dégg ci décision bi mu jël ci démettre la ci sa fonction dafa juum parce que dafa pour ni nga ni nga expliquer mooy moom waxul terewul donc am nga sañ-sañ nga wax ci nga wax ci mu ñu wax ay nit ñu attaqué la ñu attaqué la ci loo xam ni teguñu ko fenn kon da nga jàpp ni moom dafa juum ci euh, décision bi mu jël ci yow. premièrement euh, newuma que président moo leen ne attaqué leen Sori Kaba j'ai pas dit ça dama ne rek ay nit yu ñuy jël ne leen attaqué leen ñu attaqué kii wax attaqué leen nag bañ nañ ko bañ a tudd ça c'est un deux jàpp naa ni question boobu buñ ko laajoon moom président de la république. tey te ñooñu dug sori rek lañ leen di attaqué loo. déedéet mën nañ leen attaqué loo. n'importe évidemment ok mais xam xam nañu ne noonu rek la ñu mën a comporté woo parce que xam nga Pape militant dafa diis. mais dafa mel ni yaa xam mbay moo la ci gën a naqari yow. no man du ma tudd si si si non dafa mel ni daf la ci gën a naqari parce que am na fu ma gis nga ni euh, def ngeen benn débat muy def muy muy attaquer le le le régime yow nga koy défendre donc loolu ci rappel ci ci ci ci ci fàttaliku naqari na la. di tax bëgguma tudd tur. waaw moo di sénégalais yi ñu ngi observé. mais moom bi mu lay attaqué daf doon tudd sa tur. <laughs> si te tontu naa ko. waaw ah. tontu naa ko parce que le 8 mars. bii passé. Mhm. ba ma demee Fatick. interview bi ma njëkk a jour